ci ànd ak El Hadj Ahmed Aidara bismillah tribunalu Thiès ba tàng na démb lool waaye jilee tribune yéene kay ne ba muy jàkkaarloo ak juge d'instruction ba day attekat ba Cheikh Béthio Thioune ah ñi ngi xam le ne xamal na kon juge boobu ne na nga xam ne kon noonee lañu ko dencee ca kaso ba laal indil na ko kon ay gàllankoor ci wàllu wér-gu-yaramam maaratey taali maa la ko wax njiital cantaku nii naqarlu na bu baax a baax li mu toog kon te mënatul gis nag ay jegeñaaleem rawatina kon njabootam ba ci sax ay taalibeem le populaire ne Cheikh Béthio Thioune day jëlee bi nga xam ne kon jëlee nañ ko ko ci Thiès ke indi ko ci diwaanu Ndakaaru Njaay jël Jóob gi ay awakaam yëguñu waaw démb it ñu koy dégloo di te ay awakaam kon fekkeewuñu ko attekat ba ca boppam ndekete moo fàttee kon convoqué avocat ya ndey Anna Ndiaye jël xalimaam ci le populaire ne Cheikh Béthio Thioune moom mais jàkkaarloo bi nga xam ne kon doon na ko jàkkaarloo nag ak juge d'instruction premier cabinet ba Abdoulaye Assane waaw nekkul ne la xewoon ca Medinatul Salaam gée nga xam ne Baara Sow kon dafa ñàkk ba ak Ababacar Diagne loolee lañ ko doon Cheikh Béthio Thioune day a ah, na kon naqaram ci kanamu attekat ba lig Nicolas itam jàkkaarloo na ak attekat ba Le Quotidien yéene kaay ne ba dañu koo mujj ak le combat du nul tribune yéene kaay ne avocat yi nekk ci ñaari pàcc yëpp la ñu xamle daal mooy tribunalu Thiès googe amul kon kattan bu mu attee rawatina ñaar ci ay douanier kon ña nga ca biir dossier ba bu ñu sukkandikoo ca ñoom daal a ah, ab tribunal spécial boo xam ne dana am ñaari assesseur militaire ñoo leen war a attee yéene kaay gi ne jàppal bàyyil gu mité miti kon moo amoon seen diggante kon ak attekat wax wax ju tar lool waaye procureur Cheikh na an daa lànk ndaari tëdd ca suuf ci kàddu yi nga xam ne kon moom la avocat yëkkati xamal leen ne ëtt attekat yi mën na leen a kon attey tribunal loxo ca poos di flagrant délit bu Thiès googe mën na leen a kon attey ñoom ñaari douanier yo le pays au quotidien ne mbirum lig Nicolay googe ah dubalees mootloo ak ñeneen ak ñeneen dikkoon nañu kon kàttanal lig Nicolay Walf Grand Place ne xar fa fu fay day safoon nañu démb kon ca tribunal ba nga ni maa la wax li ay sëriñ ak ay atte ba tribune yéen kaay ak la populaire ne moo tax aj nañu atte ba ba fukki fan ak ñaar ci yorog novembre suñu laa mu ne ñaareelu Luc Nicolaï ba nga fa woon ah Kër Jata Touré day dana xaaraat kon ba ci kanam sénégalais dee ngi xaar kon audit ya ba léegi ni lee Le Quotidien yéen kaay ne Karim Wade day convoqué nañu ko fukki fan ak juróom ci yorog novembre bi lee réew mi ko dégluwaat dee ci alalam ji lee Aminata la justice waaw yëkkati woon na procès verbaux yo kayit ya ne kon moom la ñu tënkoon enquête wax gendarmerie kon defoon ko ca Karim Wade moo mais jébbal ko procureur spécial bu tribunal bi nga xam ne kon moom lañ fi teg ngir kon muy xeex lépp lu jëm ci ñi nga xam ne dañoo am kon ab alal joo xam ne leewul procureur googee Alioune Ndao la waaw waaye nag la ñu gis kon ca dossier wu Karim Wade yee am na ca loo xam ne jekkul de moo tax kon gendarmerie ca boppam kon war koo dégluwaat Karim Wade nag ak Thierno Ousmane Sy lañ leen di xamal daal mooy dañoo yor ab alal xam ne kon ña ngi ko dénk ca bitim réew googee wala ñu ko la gën a tax sax ñu convoqué Karim Wade kon mbir moomee la libération yéene kaay ne waa parti démocratique sénégalais day nee na ñu dañoo fas yéene kon jéebaane sulli ay mbóot yu doy waar a doy waar maître Ousmane Ngom Madické Niang ak metre El Hadji Amadou Sall ñooy doon kon ay awakaam Ibrahima Sarr ak Aminata Niane nañ def attention de ah tey njabootuk Abdoulaye Wade gi Abdoulaye moom amatul dara Abdoulaye Wade ndekete deseetul dara dara dara ba dara booloo jeex ubbil tribune yéene kaay nee na Abdoulaye Wade kon ay fan yu mitti mitti lay dund nag même bu dee Macky Sall jébbal na ko ab capitaine médecin militaire Abdoulaye lu gën a duun loolee la soxla Abdoulaye Wade ci boppam xamal na kon benn jege ñaale président Macky Sall ne ko man dama dul yëngu ci ay mbirum daf yëngal ay mbirum informel loi boppam kon laa bëgg ñu appliquer ko Abdoulaye Wade nag jàpp na ne daa war a am kon ab kër am benn cabinet benn bureau daal bu ndaw waaw woo xam ne dana am benn aide de dana am benn chef de cabinet dana am benn conseil technique dana am ñaari assistante di ñaari secrétaire dana am benn otoog benn chauffeur Abdoulaye nee na daa war am toggkat kat Abdoulaye nee na daa war am kon ab gouvernante fara Wade njàg daara Wade njàg lée waaye Macky Sall daal mel ne nii xameewu ko noonu daal ah daal moo tax ba président Abdoulaye Wade ci boppam dem jébbal boppam président Côte d'Ivoire di Ouattara i eh, waaw parce que ñëpp xam nañ diggante Ablaye Wade ak Alassane Dramane Ouattara seen diggante Ablaye moo doon jàppale kon président Côte d'Ivoire bii ba muy xeex ak président Laurent Gbagbo ba mu saf ñu baree bari yëkkati woon nañ ci kon am coow président Alassane Dramane Ouattara nag jël na kon ab dogal ne président Abdoulaye Wade bii léegi man danaa ko jël en charge li des kon ci dundam la ilaha illallah <laughs> tey lii l'affaire de président maa la ko wax ay jege ñaale président Abdoulaye Wade nag nee na ñu Macky Sall a Omar Faye day ka mu jam baaraamu tuuma Youssou Ndour la njiital leeral askanu ci tribune yéene ne xam nga Youssou Ndour bu ne daa bëgg a delluwaat ci seen di way ak a mbalax ka waye ka fecc ah saaga la kon ci suñu république bi la Omar Faye ne ah kay parce que yow Youssou leer ne kii nekk fi ministre de la culture tey di Abdoul Aziz Mbaye Dogo nekkul ne moo koy tere way ak fecc de ah ah waaye ko koy tere yow Abdoul ca Europe gay Omar Faye ci Walf Grand publique bi la bëgg a jël def ko un Sénégal ne dort pas un Sénégal ne dort Omar Faye ne Sénégal ne dort la Youssou Ndour kon bëgg a def suñu république bi la te li xel mënul nangu nag mooy saaga la sax booy xool ba ci biir bàyyi Youssou Ndour ci gouvernement bi ba pare dàq maître Alioune Badara Cissé ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo gën a xarañ junni yoon Youssou Ndour mi ne waaye Rufisque ja Omar Faye ci tribune yéene kaay ne Youssou Ndour daal suñu a a jël kon ay ngir dàq homme d'affaires yi nga xam ne lenn taxu leen fee nekk lu dul seenu poos Abdoulaye Mamadou Guissé acteur culturel la ci direct info nee na mémorialu Gorée bee ñuy wax ak juróom-ñeenti milliards yoo yee Youssou Ndour moomu ko juróom-ñeenti milliards maa la wax lii laa <laughs> ilaha illallah tuddi million tuddi milliard te gisaguñ ci dara dara dara dara ba dara booloo jeex maa xamul wax ji du nekk ñin kañ la ñuy xuloog maçon wala kañ la ñuy dawal ci wit wit yi wala kañ la ñuy samp suñu yëf bopp wóoy alaaji yow daal tëjal rek boo bëggee nga tijji tànn sa bu neex la